waa ñu ngi euh, am mbégte bu rëy ci teewaay bi fii tey amoon nañu yéene sax fekke lenn ci burdu bi waaye dañoo ne woon bitim réew ñibbi si démb moo tax tey ñu teew si fii waaye bi ñëwee it gis nañu yaatu ouverture bi nga xam ne xalif bi wane na ko ci bi ñuy dugg dafa fekkoon muy waaj mu war a génn waaye bàyyi na li mu doon def dalal ñu jël temps bu bari waxtaan ak ñun tamit di waxtaan diggante euh, sëriñ ak taalibe waaye di waxtaan surtout diggante baay ak doom ndax ay dénkaane la yoo xam ne joxe na ko ci li nga xam ne gannaaw dayer bi mu waxee ci lan mooy solos gàmmu gi nga xam ne lépp ci euh, bëgg a màggal ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun jullit mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu waxee ci li jëm ci gàmmu gi ak lan moo ko waral ñu jàpp ci li mu wax surtout ci ngën ci ngën ji mbindeef mu yent yàlla yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu jëlee ci ay ay ay leçons yu am solo joué na aussi rôle bi nga xam ne moom lañuy xaar ci kilifa diine yi mooy joxe na ay ndénkaane ci li nga xam ne mooy suñu wareef ñun ñii nga xam ne ñoo féete mbirum àdduna su dee noonu lañ ko mën a waxee parce que mbirum àdduna amul amul lenn loo xam ne nit ki dina ko def mu yem ci àdduna lépp loo fiy def rek am na jeexital euh, fi ñu jëm mooy euh, suñu mujjantal ci kanamu yàlla waaye ci waxin la comme dañ naan toujours dafa am ñu féete diine gi am ñu féete mbirum àdduna joxe naa ay ndénkaane ci li nga xam ne mooy li mu jàpp ni mooy suñu wareef ñun mooy nu mbir mi métti métti métti nu jàmmarloo bi métti métti métti nu xëccoo bi métti métti métti kenn ku ne na fexe ba lu muy def na ci digg doomu na ci digg doomu ci kàddu waaye na ci digg doomu it ci jëf ndax nun ñëpp bokk senegal te senegal ñëpp mbokk lañu ñaar ñiy xëccoo wala ñuy jàmmarloog boo xëccoon ba xëcc di nga fekk am na fu ñu bokk wala am na fu ñu daje ci ay ci mbirum deret wala am na fu ñu bokk ci mbirum alliance kon Sénégal réew mu ndaw la ñun ñëpp ñu bokk ko kon ñoom seen rôle loolu la mooy toujours wàllu moral bi wàllu spirituel bi ñu ñuy fàttali ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen fànn wi ñuy dellusi ci valeur yi nga xam ne moo war a jiitu wala moo war a doon laytaay ci suñu action kon wax dëgg yàlla am nañu mbégte bu rëy rëy tey ci ñëw gi euh, déggu nañu kilifa gi bu baax a baax wax nañ ko tuuti it ci li nga xam ne mooy suñu gis-gis ci senegal ak lan moo waral ñu ñuy xeex def naa mënuñu ko woon ñàkk gaaral lu mel noonu wax nañ ko ci tuuti waaye soriwuñu ci ndax bés bu mel nii du bésu politique donc kenn du fi ñëw pour def politique ñun ñëwuñu fi woon pour def politique gannaaw loolu it sàkku nañu ay ñaan mu defal ñu ñaan euh, yoo xam ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax ni yàlla dina ko nangu. ci waaw li ma wax léegi rek bi ñu duggee ci biir mooy senegal dañoo am chance bu rëy te li may wax ni moom laa bindit ci sama téere bi ma bi ma génnee fan yële. mooy jafe-jafe yi ñu am Sénégal yëpp ci wàllu état ak ci wàllu institution ñun ñëpp xam nañu suñuy institution dëgërul suñuy institution rôle bi ñu waroon joué joué wuñu ko du ci wàllu assemblée du ci wàllu judiciaire bi ba tax dafa mel ni lépp dafa tënku rek nekk ci loxo benn nit loolu réew mu mës a am rek problème yu bëri am na fa waaye ñu gis ni Sénégal li am ci réew yu bëri ba indi fa ay guerre andi fa ay xiiroo ngaay yu bëri loolu musul am Sénégal la ko may nag mooy rôle bi nga xam ne régulateur sociaux yi ak diine gu ñu mun a bokk ak tarixa gi ñu mun a bokk régulateur sociaux yi yàgg nañ ko joué ci réew mi loolu nag ràññewoon nañ ci bu baax euh, Al Amine mi nga tudd nga xam ne ci wàllu diine gi ñëpp xam nañu rôle bu mu doon joué pour euh, jokkale ak jegente jegele euh, këru diine yëpp waaye weesu na sax këru diine diine yi ci boppam waaye gis nañu ni am na rôle bu bëree bu rëy rëy bu mu doon joué ci saa suñu demee ba tension politique am fu mu yegg defe naa moom bokk na ci ñi nga xam ne ci lu fës ak lu fësul am na jéego yu mu ci daan dox ba ñu mujj am jàmm ba yàlla wis ci ndox bu sedd kon kooku defe naa référence la royukaay la waaye dafa bokk rek ci tradition bi nga xam ne moom la ñu xam Sénégal te nitu diine yi di ko jouer ba mu permettre ñu malgré fayitu élite politique yi léeg-léeg moom mosuñoo am yenn problème te yàlla bu buñ ko mos a am ilaa yow mi diin ben ça a un entretien instructif je remercie d'ailleurs avant tout le khalife qui nous a bien reçus et avec une ouverture euh, l'ouverture qui le caractérise. Nous avons parlé particulièrement de l'événement du Maouloud. Euh, nous avons bien écouté un peu ses, son sermon sur euh, la symbolique du Maouloud et l'histoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, nous avons ensuite parlé un peu du pays Mais en termes de recommandations, vous savez que nous sommes ici dans un foyer religieux et nous avons bien apprécié les recommandations du calife qui tournent autour de cette euh, nécessité pour nous autres acteurs politiques, de, même dans la compétition politique, même dans la contradiction, euh, d'avoir un sens de la retenue, parce que nous partageons tous ce pays qu'est le Sénégal et qu'au-delà de tout, euh, tous les Sénégalais sont quelque part apparentés. Et qu'évidemment, tout le monde ne peut pas voir la même chose, penser de la même manière, mais que dans cet affrontement qui doit être un affrontement d'idées, de programmes et d'opinions, que nous puissions euh, avoir comme euh, boussole que nous partageons ce pays Nous partageons les mêmes environnements, les mêmes parents quelque part. Et peut-être que ce qui appelle pour chacun d'entre nous à un minimum de retenue et de, de retenue verbale, mais retenue également dans le comportement de tous les jours et retenue dans la manière de concevoir ou de traiter l'adversaire politique. Donc ça a été très instructif. Nous remercions une fois de plus de Khalif. et toute la communauté tidjane à travers lui, euh, toute la communauté musulmane, j'allais dire, parce que euh, le prophète Mohammed n'est l'exclusivité de personne. Nous remercions également euh, ceux qui ont facilité notre venue à Touba, à, à Tiwawan, et qui nous ont permis de nous introduire facilement. Nous étions déjà avant cela chez euh, Seigne Abdou. Nous allons continuer pour aller rendre visite euh, à Seigne Pape Malik Sy et à Seigne Maodo. Je crois que c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre normal des relations qui doivent exister entre les acteurs du temporel que nous sommes et les tenants du spirituel que sont les foyers religieux au Sénégal, et surtout dans des événements comme ça. émission ce que nous retenons, c'est la longévité, non pas forcément en termes d'âge, mais la longévité et la constance dans un rôle de modérateur, dans une implication permanente, euh, aussi bien au, au de, au point de vue strictement religieux qu'au point de vue de, de la marche de l'État, surtout dans la dimension politique, pour toujours jouer le rôle de modérateur, le rôle de facilitateur et pour euh, intervenir dans des moments assez difficiles du Sénégal et éviter à notre pays de sombrer dans le chaos comme ça a pu être le cas dans beaucoup d'autres euh, pays de l'Afrique. Donc c'est un homme qui a quand même marqué l'histoire du Sénégal par rapport à ce rôle-là, euh, que tout le monde lui reconnaît également dans les relations entre les différents foyers religieux.